مولاي ñëw ci yi nga xamante ni nag ñu ñëw ci yi nga xamante ni su la gaara ci julli gi dara du ci war laajul baada salaam laajul xabla salaam julli gi baax na yàquwul loolu ñëw na ci fanweeri yëf ak ñeent ba ci njëkk mooy wa man naqasa al fadaila fala sujuda alayhi ngëneel soo ko wàññee ci julli doo ko sujjootal waaye nag soo ko sujjootalee xabla salaam julli gi day yàqu kon waroo ko sujjootal dina ñëw ci basal da ñëw ci yàqu julli ñaareel ba waman nasiya as sujuda alqabliya xata sallama sajada in kaana qariban wa in taala aw xaraja min almasjidi batla sujudu wa tatul salaatu maahu in kaana ala salaasi sunanin aw aksara min zalika mafhum bi mooy wa illaa fa laa tabtulu kon du yàqu nee na ku fàtte xab xabla ba sëlmal sujud ko su fekkee yàggul su yàggee nag wala nga génn jàkk ji nag ah sujud bi yàqu na de te kon julli gi it mën naa yàqu ànd ak sujud bi su fekkee la waral xabla salaam bi mat na ñetti sunna jëm kaw su fekkee matu ko nag kon nag sujud bi eh, maanaam eh, julli gi yàquwul dara waru la ci te doo ko sujud ndax yàgg na moo tax lool it ci yi nga xam ne dara waru ci la bokk kon bàyyi xabla salaam bu matul ñetti sunna te mu yàgg dara waru ci te it du yàqu julli ñetteel ba muy waman shakka fi salaami sallama in kaana xariban wala sujda alayhi nee booy sikki sàkk sëlmal naa wala sëlmaluma fi nga toog jógoo de génnoo jàkka ji kenn ngay sikki sàkka sëlmal naa wala sëlmaluma nee na sëlmalal dara warul sëlmalal dara warul waaye soo génnoon rek mbaa nga wax fee kenn mbaa nga def li ñuy tuddee inxiraaf maanaam insiraaf insiraaf mooy nga wëlbati fi nga ne woon tourné nga ah su boobaa nag te diggante bi yàggul bokk bokk bi nga génn jàkka ji wala mu yàgg yàqu na moom waaye diggante bi yàggul def nga insiraaf insiraaf boobu wala wax gi nga ko wax a kenn dana tax soo ñëwaatee yokk julli gi sëlma da nga def aada salaam yokk la waaye loolu nag indi wu ñëwu ko ci mafhum rek la ñëwee nee na kon ku sikki saaka sëlmal ak sëlmaloo fi nga toog dara xewul jege na nee na sëlmalal mu jeex dara dara waru ci njéem tuwul bati koo xibla bi njéem waxoo waxtu waxoo fekk kenn maanaam luy wane yokk ci lig amul ci biir wa man shakka fi xadasin aw najasatin fa tafakkara fi salaati qalilan summa tayaqana taharata fala shay alayhi nee na ku sikki sàkka di werante toj le nga toj le woo wala ngay werante lii sobe laam du sobe li la tax nga xalaat ci tuuti yëg ni ah toj le woo de wala ah ah naa lii du sobe maanaam madd moo ci taxoon xam naa ah su boobaa nag wala chey ali dara wara la ci toog boobu nga toog diir boobu xalaat ci noonu may baal nañu la ko juróomeel ba man zaada suurata fi rakaatayni al axiratayni fala sujuda alayhi nee na koo xam ne dafa yokk saar ci ñaar yi mujj yi nga xam ne faate kese lañ ci war a jàng nga indi saar dangaa juum kooku it dara waru ko ci lu saari bari bari ak lum ko répété répété dara waru ko ci wa man xara suratayni aw aksara fi rakaatin waxidatin aw xaraja min suratin ila suratin aw rakaa qabla tamaami surati fala shay alay fi jami zalik ku jàng ñaari saar ci benn rakkaa wala ñetti saar ci benn rakkaa wala lu ko wala nga génn ci saar bi ta pareegoo ci dem ci beneen saar songu saar jeexul nga bàyyi ko wuti beneen wala nga rukkoo te saar bi matul da ko jàng mu xaaj nga dem rukkoo yooyu yëpp dara waru ci da ko def yëpp dara waru ci amul baada amul xabla tey julli gi baax na juróom-ñaareel bi mooy waman tazakkara sirra awil jahra qabla rukui aada al qiraata in kaana dalika fi surati waxdaha aadaha wala sujuda alayhi juróom-ñaareel ba ci yi nga xam ne dara waralu ci nee na soo fàttalikoo biral wala yelu avant ngay rukkoo waxoon nañ la danga baamu njàng mi su fekkee loolu ci saar bi kese kese la la dal baamtuwaatal saar bi te doo sujjóot dara waru ci juróom-ñetteel ba wa man jahara fil xunut fala sujuda alayhi walakin yakunu amduhu biral maanaam xunut dañ ko war dañ ko war a yelu soo ko biralee nee na dara waru ci waaye nag sib nañu bu fekkee yaa ko tay di ko biral noonu sib nañu loolu waaye nag dara waru ci wa man xalita fi lqiraati bi kalimatin min xayri alquran sajada baada salaam wa in kaanat min alquran fala shay'a fala sujuda alay nee na bu fekkee da nga julli jaxase ci njàng alquran bi dugal ci beneen baat bu ci bokkul waxoon nañ ci ginnaaw ne da nga sujud baada su fekkee baat ba nga jaxase nag ci alquran la bokk nag kooku nag fala sujuda alay mooy dara waru ci fukkeel ba wa man naadaahu ahadun fa qaala loo subhaanallahi kuriha wa saxat salaatuhu boo julli am ku la woo nga ne subhaanallah loolu nee na yàqul julli gi baal nañu la julli gi wér na fukkeel baag benn wa man waqa fi lqiraati walam yafta alay ahadun taraka tilka al aaya wa qara ma baadaha fa in taasarat alayhi rakaa wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ila an yakuna fi lfatiha fala budda min kamaliha bi mushafin aw gayrihi nee na ku gàkk ci kuy jàng alxuraan ba ci julli ba mu yàgg nga gàkk te kenn gàggantiwu la bàyyil aaya boobu nga song nga jàng beneen aaya bi topp ci ginnaaw soo ko songee mu jafeñ demal nga rukkon jëru xool kaamil jëru xool dara su fekkee loola ci saari la nekk ci alxuraan bi la nekk bu nekkee ci faatiha nag fokk nag nga matal faatiha bi nag ci moo xam kaamil ngay wut joolo nga xool ci jàll faate moom dana ñëw wala sax lu dul kaamil ni tey taxaw fële di wax ngay dégg jàpp jaar fa wax nga mu daal bi na mat rek <laughs> na mat rek loolu nee na dara wëru dara newu ci ku dégg waman samia zikra muhammad salaa sallam wa fi salaati fa sala alayhi fala shay alayhi sawaun kaana saahiyan aw aamidan aw qaaiman aw jaalisan nee ku dégg turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa te fekk mu nekk ci julli gi mu daal di julli ci yonent bi loolu mu def fala shay alayhi dara waru ci moo xam da koo def ci njuumte moo xam moo ko tay da ko fekk taxaw da fekk toog yëpp rek baal nañu ko ndax yonent bi moo toll noonu fukkeel baak ñett wa man atasa fi salaatihi fala yastaxir fi lhamdi wala yaruddu ala man shammatahu wala yushammitu aatishan fa in xamida allaha fala shay alayhi nee na ah, ku tissooli ci julli tissooli tissooli ti soli ci julli nee na jërul mu wax alhamdulillah day bàyyi noonu rek waaye nag su waxee alhamdulillah yi nag taxul julli gi yàqu baax na te dara waru ci bu fekkente ni moom tissooliwul waaye am na ku tissooli bu ni kooka ne bu mu ko ne yarhamukallah bu mu ko ndokk ci tissooli bi moom itamit bu tissoolee bu mu wax alhamdulilah la waxoon su ko waxee julli gi yàquwul waaye su ko waxee su ko keneen ne yarhamukallah moom bu mu ko delloowaat ne yem ci moom nga <laughs> ko de looloo tax kon fa xamida fa in xamidallah fala shay alayhi ndax sant yàlla gi ah, baax na wa man xaama min rakaatayni xabla al juluusi fa in tazakkara xabla an yufaariqa al arda bi yadayhi wa rukbatayhi raja ila al wala sujuda alayhim fukkil baa ñeent mooy nee na wa man xaama min rakaatayni ku am maanaa ku taxaw ci ñaareelu rakka laata muy toog ñu waxoon ni su fàtt su ko fàttalikoo laata muy tàqalikoo suuf si nee na mën naa toogaat ndànk continuer taayaam te dara du ko war du ci sujootante du dara mooy fukkeel ba ak juróom ak ñeent fukkeel beeg juróom mooy waman mu li mutahaddisin qalilan fala shay alayhim nee na ku julli ba yàgg nga am ku tudd sa tur wala ku wax dara nga ni tekk déglu ko cellantu la ko wolof di wax nee na cellantu goog nga def te yàggul nag fala shay alayhi dara war ci baal nañu la bu yàggee nag day yàq julli gi ndax fi'lul kasir min xayri salaat salaati ci mubtila salaat la bokk maanaam jëf yu bari te xeetawul ak julli gi jur fukkeel baak juróom benn wa man ashara fi salaatihi bi yadihi aw ra'si fala shay alayhi boo jëli nit di waxa ak yow nga junj ko ci sa loxo wala ci sa bopp diw ñëw naa nga ne ko waaw fekk nii nga ko waxee walla nii loolu nga def nee na dara waru ci laajul baada laajul la ju ngeen baax na fukkeel baak juróom-ñaar wala shay ali fi tabassum nee na kuy julli ba yàgg nga xalaat lu la muuñ loolu la reeloo nga muuñ ci julli gi muuñ nee na dara waru ci tayit doo sujjat baada doo xam la te julli gi baax na waaye nag muuñ la wax bokkul ak reex hmm. xàqataay moom yaa ko julli nee na bukaawul xaashi fi salaati muxtafarun ki nga xam ne day jooy ci julli jooy ya muy jooy rangoñam di génn te ragal yàlla moo tax loola baal nañ ko ko dara waru ko ci toppuñu ko ci dara amul baada amul xabla fukkil baag juróom-ñeent wa man tasaaba fi salaati saddafaahu wala yanfusu illa fi sawbihi min xayri ixraaji xurufin nee ku bébbali na nga jël sa loxo teg sa gimiñ bu amee ay lor bu ko yàbbi fudul ci sa yére wala ci morsa wala yu mel noonu waaye boo ko yàbbi nag na fekk bul génnee waale xuruf maanaam ay xaraf bul génnee ah, xuruf soo ko defee dara bi ca war waaw xuruf nag man ngaa sujjóot baada salaam na nee na tanahada ku binn binn fi salaati ci julleem fala shay alay ah ilaa n yantiq bi xarfin fa in yantiq bi xarfin saaxiyan sajada baada salaam waaye su fekkee foofu rek la yem fala shay alay mooy koo xam dafa ne um ah binn wala jalu wala dana ko xam binn wala jalu ah, waaw boobu moom ah, moo fattoon sànq moo jég ay dégg na ah, saaru onk la mais ba tey wuute nañ ni xalaat dana koy def nit di xalaat ba yàgg am lu ko nax mu ne di cax bopp bi loolu mooy binn wala jaloo nee na ku ko def ci julli dara waru ci ah lu dul na da ngaa tudd xaraf nag boo indee xaraf yi nag luñ mën a dégg ni lii kat ab xaraf la même bu dee benn xaraf wala ñaar sax dana waral baada salaam wa aninul maridi onku aji feebar kooku tamit lu ñu baale la wa tanaxnu muxtafarun moom itam wali ibhaami munkarun wala taftu salaatu bii nee na onku aji feebar baale nañu ko xadamti ko it baale nañu ko Ah, bu dee nag da nga koy pour déggale ifham mooy déggale bëgg nit dégg la wala yu mel noonu loolu nag dañu ko sib rek waaye taxul taxul taxul mu lu ñu bañ la rek waaye taxul mu yàqu julli taxul it dara war ci nag waaw ndax xàddamtiku ngir dafa am lu jaar fii dafa am ak xàddamtiku ngir benn waaye ñëw nga wan ne ko maa ngi ci néeg bi te amoo benn aaj ci xàddamtiku boobu lañu boobu lañu boobu lañu boobu lañu moom la ñu gënal xanaa moo moom la ñu bañ waaye bu dee da ay yitte woo xaddamtu ko nag xaddamtu ko ah, dara néew ci ñaar fi kër baag ñaar mooy wala chey fi xalabatil xay wala xalasi fi salaati nee na wàcc wala gal su la notee ci julli nee na loolu baal nañu la dara néew ci waaye nag fekk na wàcc woo maanaam looju woo wàcc provoqué woo ko dafa ñëw rek forcé la nekk ku feebar wala yu mel noonu wala muy gàll te wàcc mi it soppeekuwul nekk sobe wala yu mel noonu waaye bu nekk sobe ke day day far sax mujj yàqu julli ñaar fukkeel bi ak waman waman fi salaati saahiyan fala shay aley wa in taamaduhu fa huwa makruhun wa in istadbara alxiblata qataat salaat nee ñaar fukkeel bi ak mooy wa man iltafata fi salaati saahiyan maanaam kuy julli nga geestoo te da juum nee na dara waru ci soo ko tayee nag def nga lu ñu sib rek waaye ba tey taxul julli gi dara war ci ba yàqute am ci bu fekkee ne danga ngaa ba far wëlbatiku xibla bi nag dëddu xibla nag ah kon nag julli gi yàqu na yaa ko tey wa man naasa fi salaati fala sujuda alayhi ñaar fukkeel baak ñeent nee na kuy julli ba yàgg ngay jayaxu mooy di nelaw nelaw yu woyof yoo xam ne fóorul mooy jayaxu ngëmment gu ndaw nee na fala sujud alayhi dara waru ci moom baal nañu la loola waaye nag bu mu nekk nelaw yu jàpp waaw nelaw yu jàpp mooy nelaw yu dëgër wa man jaala fikruhu qalilan fi umuri dunia naqasa sawabuhu walam tabtul salaatuhu nee na xam ne dafa jilli ba yàgg xalaatam dem fu sori ci wàllu àddina ci mbiri àddina yi xalaat kër geeg nangam nangam ah ba xaw a yàgg lool wala sax maanaam yàggu ci genn yàgg ki nag xalaat ci tuuti rek loolu tiyaabaam dana wàññeeku ndax génn gi mu génn ci eh, yéeneem gi mu maanaam teewlu gi mu nekkoon ci suñu borom teewlu googu su fekkee da nga ciy dugal mbiri àddina teewlu gi day dem day wàññeeku loolu moo tax tiyaab ji dee wàññeeku waaye nag àggul ci nag walam taftu salaatu julli gi yàqu ci nag moom kon dara wër ko baax na ñaar fukki ak juróom benn wa man dafa al maashiya na ku jañ aji aji ci sa kanam maanaam nit ku ngay julli am ku sa kanam bëgg jàll nga puus ko pour bañ jàll loolu nga def dara wëru ko ak juróom ñaar mooy waman sajada ala chiqi jabhatihi aw sajada ala tayatin aw tayatayni min amamatihi fala shay alayhi nee na booy julli nga sujjóot ci sa peggu jë mooy ci sa wet gi ni peggu jë bi wala nga sujjóot ci sa lem-lemu kaala benn lem-lem wala ñaari lem-lem yi lemu sa kanam comme kaala yi ñu kaala woo nee na su boobaa yooyu nga def baax na dara waru ci amul xabla amul baada tey it julli gi baax na du yàqu ñaar fukki baag juróom-ñett mooy waman salla bi xariirin aw zahabin aw saraxa fi salaati aw nazara muharraman fa huwa aasim wa salaatu saxiixa ñu ne ki nga xam ne dafa jule yére suwaay yi yére yi ñu sol sooy la ko olof di wax wala mu ju mu jullee waaw yére la ko olof di wax mooy suwaay wala mu jullee yére wurus yére mu sol ay wurus lañ ci def wala mu sàcc ci biir julli gi jëli fi jaambur ci fekk mu nekk ci làquwaay wala mu xool lu xaraam yooyu yépp ay xeeti bàkkaar la waaye nag julli gi wér na mooy ne yàlla ci li mu def rek am na ci bàkkaar waa julli gi nag dara waru ci moom baax na moom ñaar fukki ak juróom-ñeent mooy wa man jaatu xayatun aw aqrabun fa qatalaha fala shay alayhi ila an yatula fialuhu aw yastadbira alxiblata fa innahu yaqtau salaatuhu na ki nga xam ne dafay julli ba yàgg jiit wala jaan wala loo xam ne daal luy lore la ñëw pour gaañ ci biir julli mu rey te jëf ji yàggul dëdduwul xibla jógiwul ci sobe yooyu su amee nee na dara nekku ca baax na waaye su jëf ji yàggee nag wala mu dëdd xibla bi nag kon nag day julli waa julli gi baaxul yàqu na fanweer bi mooy fanweereel bi mooy wa man takallama bayna shaf'i wal witri saahiyan fala shay alayhi in kaana aabiran kuriha wala shay alayhi nee na diggante shafa ak witar ku ci wax te da ngaa juum loola dara waru ca même soo ko tayet sib nañu ko rek wante dara waru ca fukkil baak fanweer bi ak benn wa man nasiya suurata aw aljahrata aw sirra fi naafila wa tazakara baada rukuu tamada wala sujuda alayhi bi xilaafi farida nee na ku fàtte saar wala biral wala yelu ci julli naafila nga fàttali ko ginnaaw bi nga rukon nee na continuer baal nañu la te sujjóot waru ci ndax yelu ak biral ak saar yëpp dañu ko sopp ci naafila waaye du sunna loolu nag wut naag farata fanweer ak ñaar wa man nasiya ruknan min annafilati ka rukuuci aw sujudi walam yatazakkar xata sallama wa taala fala icaadata alayhi bi xilaafi lfarida fa innahu yuiduha abadan nee na ku fàtte ponk ci naafila ponk waxoon nañu ko mooy lu mel ni rukon wala sujjóot wala yi mel noonu bu dee ci naafila na nga ko bàyyi te fàttaliku woo ko ba nga sëlmal te yàgg na génn nga jàkk ji dem say soxla sa xel doog ci daj nee na julli naafile boobu baax na te doo ko baam baamuwaat dara waru ca amul baada amul xabla te am nga julli nag loolu nag bu doon farata la moom da nga koy baamuwaat abadan fanweer bi ak ñett wa ida sahal maamum aw naasa aw zuxima ala rukuci wa fi gayri alula fa in tamica fi idraki alimam qabla rafihi min alsajda althaniya rakaca wa laxiqahu wa in lam yatmac taraka alrukuca wa taba imamuhu wa qada rakacatan fi mawdiha bada salaami imamihi su boobaa nag dara du ci war nee na maamum bi nga dafa jayeex wala ñu tànc ko ba rukoonwul te fekk loolu dalu ko ci premier raka nee na su yaakaaree ni mën naa jot imaam balaa muy siggi ci sujjootu ñaaral bi kon na rukon te dabi imaam su ko yaakaarul na bàyyi rukon bi te topp imaam te fay beneen rakka ci place boobu su ko defee nag bu fayee amul baada amul xabla lépp imaam moo koy gàddu ndax sahwul maamum yaxmiluhul imaam xaalal xudba fanweer bi ak ñeent te moo ko jeexal ci yi nga xamante ni dara wóoru ci mooy wa in saha ani sujud aw zuxima aw naasa ata xaama al imamu ila rakaati uxra sajada in tamia fi idraki al imam qabla aqdi ruku wa illa tarakahu wa tamia al imam wa qada rakaata uxra aydan wa xaytu qada rakaata fala sujuda alayhi foofu la ma euh, maanaa la shay alay bi yam nee na ki nga xam ne moom it dañ koo tànc wala mu jaayaxu wala mu nelaw ba ñu raw ko ci sujjóot bi ah ba imam jóg indi beneen rakka bi nga xam ne moo ci topp na su boobaa bu ko yaakaaree ni mën naa jot imaam laata imaam di fas bi na sujjóot sujjóot bi su fekkente ni yaakaarul loolu nag kon na bàyyi sujjóot bi te topp imaam su ko defee rakka boobu rëcc na ko bu imaam sëlmalee mu fay beneen rakka masala bu njëkk bi ak mujj bi yëpp su ci fayee mooy fi mu fàtteeru ko wala sujjóot bi ñu ko tàncee su fayee du sujjóot dara du ko ci war ndax la waroon sujjóot ba xam la ba baada ba yëpp imaam moo koy gàdduwaale yooyu mooy fanweer ak ñeent ci yi nga xam ne la shee ale yi dara warulu ci bokk ci yi nga xam ne moom itam mat naa xam ndax léeg-léeg nga jaawale mbir defe ni nangam ji dara la ci war te fekk boo mhm. buñ la ko buñ la ko waxoon dara waru ci mhm. te def loo xam ne dara waru ci nag dafa am conséquence parce que boo sujjóoti saa yu sujjóoti xabla salaam ci loo xam ne dara waru ci rek mhm. julli gi yàqu na donte xamoo ko woon waaye ñàkk xam gi euh, fasalu ahla zikri ji moo tax dañ lay ci amdu al jaahilu fil fiqh li gën a bari bil amid ci dañ koy yéegal ci amid maanaam al kal amdi waaw fi kasiri min ahwaal mm-hmm. al jahlu kal amdi mm-hmm. lu tax parce que ñàkk a tey jàng moo tax mm-hmm. ci coobare nga ñàkk a jàng looloo tax